jërë ngeen jëf mbokk internet bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay fas yéene ñëw rek ki nga xamante ni moom mooy euh, faramareen boobu di Waly Ballago Seck ginnaaw ba mu jugee ci Jeux olympiques yi nga xamante ni euh, demoon dafa def si prestation daal di fay jugee dem Azalai hôtel mu juróon coow loo xam ne nag soirée ba yeggul moom mi la di Waly Seck nag daal di nañuy xamal rek ni am na ñeenti oto yoo xamante ni daal di na koy wàccee fii ci réew mi bu ñu ko xaymaa nag oto yi war na tolloog un milliard yoo xamante ni moom lay jar moom mi di Waly Ballago Ballago Seck nag ñenn ñi jàpp ni rek boobu le investissement muy def ci wàllum oto am na feneen fu mu xaj ñeneen ñi ne nag est-ce que nekkul da ciy business waaye lu ci munti xew rek moom mi la di faramaareen bi daal ma ngay wëyal moom mooy ay business am waaye aussi wëyal li nga xamante ni moom mooy yooyu les tournées ki nga xamante ni nag moom mooy Sidi Diop gannaaw ba mu taxawee rek ni oto bi da koo jënd moom aussi oto boobu noonu da koo jënd 65 millions am na ñeneen ñu génn ne carrément boobule oto moom mi la di Sidi Diop jënd ko waaye aussi da koo daal di dem lu ñëwee en tout cas lu ci munti xew rek boobule oto aussi jor na polémique lool mu mel ni rek artistes yi ñenn ci ñoom daam sax dañuy bëgg di wuyoo loo xamante ni nekkul seeni tur waaye nag star yoo xamante ni ràññee nañ leen lool ci àdduna bi war nañu nag xool bu ñuy génn wala bu ñuy wax ñu daal di rek xam li nga xamante ni moom la ñuy joxe comme version ndaxte nag wax dëgg yàlla loué oto aayul waaye aussi nag boo loué oto nga nangu ne da ngaa